gis ngeen tey on a commencé par la culture parce que xam ngeen ni culture dafa bokk suñu patrimoine donc jaadu woon na ñu wane suñu culture ensuite il y un forum économique euh, il y a notre pavillon donc loolu yëpp muy firndeel rek li nga xam ne ñu ngi koy defee Sénégal sous l'impulsion du président Macky Sall mais si beneen fànn bi aussi suñu mbébét mooy fexe ba nga xam ni dinañu gis ay partenaires yoo xam ne ñu dimbali suñu projet yi nga xam ni yu am importance yi xam am nañ ko Sénégal mais wax spécifiquement ñun ce qui concerne la CDC am nañu ay projets yu bëri yoo xam ne euh, ñu ngi siy jublu loolu aussi jaadu woon nañu ñëw xool ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm si mbir mu mel noonu wala seen am-am dañ ko dugal si mbiru mu mel noonu ñu ànd ak ñoom liggéey suñu dëkk. Dubaï boo gisee mu mel ni mu mel du waa Dubaï rek ñoo ko def ils ont eu le génie au départ c'est vrai mais ensuite ils ont été aidés par d'autres donc ñun loolu mooy suñu bébét tamit am nañu xel bi. am nañu xalaat bi am nañu volonté bi mais yenn am am bi mooy des yaakaar nañ ne bu ñu ñëwee fii dinañ gis ñoo xam ne seen am am dinañ ñëw dolli ko suñu bos bu ko defee ñu defar suñu Sénégal waaw li nga li def li yëpp lu si bëri nag junj nañ ko balaa ñu jóge Sénégal am nañu partenaires yu bëri yoo xam ne man par exemple am naa benn projet boo xam ni projet hélicoptère la boo xam dañ ko bëgg a samp biir Sénégal xam ngeen ni pétrole bu amee pétrole bi si biir géej gi lañ koy jëlee donc il faut ñu am ay pétrole ay hélicoptère yoo xam ñoo dem di ko jëlee di indi di jël nit ñi di leen indi loolu am nañu projet mel noonu ñu koy togg depuis des mois mais am nañu ay partenaires yoo xam ne fii euh, ay saoudiens yooyu yoo xam ne war nañ taseex ñoom ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy ñëw dooleel ñu ba nga xam ne projet bu taxawee rek Sénégal yëpp dinañ ci seen bopp mu xam ne lu mucc ay lay doon